loolu dinañ ci ñëw mais d'abord euh, est-ce que da ngay empressé wu jël say bagage dem sa yoon parce que le régime tire à sa fin pourquoi nga toog 12 ans doog a génn li la li la métti alors qu'on est à 6 mois du terme euh, wow. du, du, du régime politique xam nga régime soo ko liggéeyalee fukki at ak ñaar bari na ci sax euh, fukki fukki juróomi at ci cabinet doy na sëkk parce que juróomi at yi bu xasee ba passé daanaka euh, ay baamtu mooy ëpp sax ci say taxawaay lu tax ngay baamtu ndax jàpp nga ni yëf yi mënoon na bar mën a am gën a am jeexital maanaam njëriñ ci askan bi su fekkoon ni wàccoo nañu ak say xalaat euh, nañu waroon a wàccoog ci say xalaat loolu mën nga ko baamtu léeg am lu bees loo xam dafay taxaw ndax àddina dafay dox Euh, régime boo ci nekkee diiru fukki at ak ñaar lañ doon xaar ci yow yépp nga liggéeyal ko ko guddi bëccëg suba ngoon ba boole ci sax lu bokkul ci sa liggéey waaye bokk na ci liy dëgëral li nga bokk muy régime bi nga bokk maanaam camp bi nga bokk li koy dëgëral ndax am na ñu nekk ci biti ci kujje lañ bokk bokkuñu ci kujje duñu noppi di bind di ŋàññi li nga xam ne ni moom la régime bii def waru gar la képp ku ci bokk lañuy ñuy te nga rafetlu ko nga wax ni ñi koy ŋàññi teguñu ko fenn ndax li xew dëgg lii la loolu noppiwuma di ko def lu juutu ma di ko def noppiwuma ci di xelal président di ko xelal ci léeg-léeg jàkkaarloo doon léeg ma xelal ko tamit ci xët bu ma xelal bu ma ko xelal jox ko li mën a mën a wax mooy diiru fukki at ak ñaar amul lu mu yónnee lu mu yónnee président Macky Sall te président Macky Sall ca na mu doxalee rafetluwu ko te itam la cay solo jëfewu ko naanaam maanaam léegi c'est quoi le problème le problème man ma ñëw nag ci problème bi problème bi lu simple la xam nga Abdoul Abdoul Aziz Diop membre de l'Alliance pour la République membre du secrétariat exécutif national de l'Alliance pour la République mënul assister ci réunion bi président APR di présider lu dul président APR daf ko convoqué président Macky Sall ku mu convoqué wul nommément ñu woo la nommément pour nga participer ci réunion secrétariat exécutif national donte membre nga ca soo ñëwee doo dugg kon man dugg ma ci réunion bu ma warul woon dugg dama dugg ci réunion boo xam ne nii ki koy présider di sama président parti moo ma convoqué ma dem ba ma demee mu def na mu daan def na mu daan def mooy nan mooy bu ñu ñëwee ba toog ba mu nuyoo bu nuyoo ba pare dafay proposer li tubaab tuddee ordre du jour maanaam lan la ñuy waxtaanee tey ci suñu réunion bii di instance bi ëpp doole ci alliance pour la république kuréel gi ëpp doole lu ñu fiy waxtaanee mu joxe proposition mu ni nangam daal su ma soñoon ñu waxtaanee ko may laaj ci salle bi ndax am na ko ku jàpp ni ñu waxtaanee leneen moo gën. wala lii mu wax ne nañ ko waxtaanee naka lañ koy jooyantee ku ci am xalaat bu ñëpp ne pat walla ñëpp ni baax na mu doora a ni lii mooy ordre du jour bi le 3 le juillet euh, li nekkoon ordre du jour bi mooy man président Macky Sall du ma bokk ci jongante yi ñu dëgmal le 25 février 2024 mais il faut que am ku ñu fa doogal kan lay doon moom laa bëgg ñu waxtaanee ko. te bëgguma ci instance bii di secrétariat exécutif national de l'Alliance pour la République ñi fi nekk bëgg nekk candidat su ma sañoon dañ koy fësal wax ko ñëpp dégg ko ñu bind ko loolu la wax loolu mooy ordre du bi mu def li mu tuddee li ñu tuddee message introductif maanaam mu am lu mu wax ci fu tolluwaayu Sénégal tolluwaayu parti bi tolluwaayu coalition bi ak li ñu dëgmal ci élection présidentielle 25 février 2024. ba mu ca paree mu ubbi liste ni ku bëgg a bindu ma bindu jàpp naa ni may fukkeelu nit ki bindu bi sama tour ñëwee ma jël kàddu bi ma jëlee kàddu nuyu président nuyu ñi ma seqal secrétariat exécutif national sànni ay kàddu wax ni man day président am naa yéene. nekk candidat comme ni nga waxee ni da nga rafetlu képp ku ko bëgg a nekk bindu fii ñu ta fi ñu nekk man dama bëgg a nekk candidat alliance pour la république ak benn Bokk Yaakaar ci élection présidentielle du 25 février 2024 te ma lay wax ni yow président bëgg a nekk gi ma bëgg a nekk candidat tiituma ci nelaw di ko wax dama ko waajal benn dama ko waajal ñaareel bi mooy man bëgguma nekk candidat alliance pour la république ak Benno Bokk Yaakaar te du ma gañe damay gañe ci ndimbalu yàlla yàlla ci jiitu damay gañe mu wóor ma ni damay gañe su ma nekkee seen candidat nekk candidat Benno Bokk Yaakaar ak alliance pour la république moo tax ma nekk candidat ndax dama ko waajal ni ma ko waajalee président mooy lan mooy ñu ngi jëm ci élection yoo xam ne ni la koy gañe du ki gën a rëy programme ki gën a rafet ay dige ki gën a rafet jaar-jaar ki gën a taaru ki ëpp alal ki am ba jël ñu topp ko du kooku moo koy gañee ki koy gañee mooy ki nga xam ne nii am na kàddu yu il faut mu génn ci dënnam pour bu génnee dugg ci bopp citoyen bi wala citoyenne bi sénégalaise bi wala sénégalais bi indiwaat yaakaar ci boppam ak ci xolam ba noppi indiwaat li tubaab tuddee confiance ci réew mi maanaam ñu wóolonte ndax wóolonte dafa tumranke ci guddi ak bëccëg yi ñu nekk ci Sénégal may Maymuna wóolootul Abdoul Aziz Abdoul Aziz wóolootul a te ñu séq li nga xam ne nii moo raw ndey ak baay ndax moo may ñi suñu ndey ak suñuy baay muy Sénégal léegi bi nga waxee loolu. bi mu waxee loolu. Mhm. président bind ma. fi ma jeexale ci sama intervention dama ni ko. man nag président du ma daaneel sama kàddu te jooytuwuma lu ma yàgg jooytu sama digganteeg yow ak sama digganteeg alliance pour la république ak Benno Bokk Yaakaar mooy jàpp naa ni euh, fa ma waroon a mën a féete sama réew fa ma ko féete yées maanaam fa ma ko féete dafa tuuti trop ci sama yéene ak sama nam-nam ak sama nisër ñeel sama réew maanaam dama nekk koo xam ne ni li tubaab di wax quelqu'un de sous-exploité koo xam ne ni lañ ko waroon a jëriñoo bu ñu ko waroon a jëriñoo téeméer juróomi sax matul man daal ki la ki lay ki lay jëriñoo mhm. mooy décider fan la la soxla ma may ma tuuti ma ñëw waaw ah, voilà soo soo déggee boo loolu li ko loolu lu muy firi mooy lu tax ma bëgg a nekk candidat parce que dama ni dama bëgg a nekk candidat parce que dama ko waajal muy benn ñaareel bi dama nekk candidat parce que kaddu yi war a jib indiwaat wóolante ci réew mi mën na génn ci sama dënn ndax dama ko waajal ñetteel bi ñàkk wàccoog man ci la ma doon Sénégal te jotuma ko koo defal su ma nekkee candidat yàlla dogal ndam li may séentu te yàlla di ko joxe mu tegu sama loxo danaa féete Sénégal foo xam ne nii danaa ko jox xor kanam gu ko kenn deetul jox